mbokki jullit di mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaara bu baax a baax tey suñuy tàmbalee suñuy kàddu ci sant yàlla sunu borom mi nu sàkk di julli ci yonentam bu teer ba sallallahu alayhi wa di sant sunu yaakaar tey ak alak Seexuna Ahmadul Xadim di ñaanal sëriñ Tuubaa Seex Muhammadul Muntaxa sunu borom bàyyi ko ci sunu kanam lépp lum mu naa la liggéey Seexuna Xadim sunu borom defal ko ci kàttan tam ànd ko ak taalibe yëpp tey ñaanal borom penc mii di sëriñ Moustapha Mbacke njaate mi nga xam ne bis bii muy saytu muy bis bu ñu baaxoo defal sunu maam ju tedd ja muy maam Maharam Mbacke di ko ñaanalit sunu borom gungeel ko ci boppam kàttanal ko ci defal ko ci tawfeex ba fépp fu ca yéenee àggale rek sunu borom àggaleel ko fa ci barke Seexul Xaddim tam ànd ko njaboot gépp di sant bu baax tey jaarale sunum nuyoo ci Bawol Média di ko jàllale di ko fa jaarale ngir mu àgg ci jullit yëpp bis bi nag day bis bu am solo nin ko waxee woon rek fan yee ci ginnaaw bis bi Cheikh Moustapha moo koy def waaye bisum réew mépp la ndax saa bu ñu tuddee maam Maharam mu tudd Mouhamadul Xayri ñu gën ko miine ci maam Maharam Mbàkke kenn ko ko màggal rek ñépp nga ko defal kon nag bis bi bisum ñépp la moom maam Maxaram sunu borom daf koo barkeel la Seyxul Xadim daan wax rek ne képp kuy ku bokk ci Maxaram di lim say maam ba accès ba ci moom doy na sëkk ndax sunu borom daf ko barkeel ni mu barkeeloon sunu maam Seydina Ibrahima alayhi salaam maam Maxaram njaboot njaboot gu yaatu njaboot gi nag buñ koy tudd dañ koy jaare ci ñi nga xam ne ñoom la dëkkoo woon. dañ koy jaare ci ñi nga xam ne ñoom la dëkkoo woon bi matee denc soxna ndijaayam ku ñuy wax mbërgal ma filite ñang bokk ak ndayam soxna aram ñang nday ak baay moo yëkkati doomam jox ko muy soxna awa ñang sunu maam ju tedd ja taawloo ca soxna mbàkke xawa ñang ginnaaw ba dafa jël soxna suñuy wax soxna mat a sekk soxna a Seck Maxtaar Ndumbe siiw na lool ndax wax nañ ni jàngandoo na ak maam Maharam li gën a siiw it am na téere yu jàngal maam Maharam so Ahmadou Ndumbe mi sanc Kokki Ahmadou Ndumbe waaye juróom bu jigéen soxna Ndumbe Seck mook soxna Farimata Seck mi maam Maharam yoroon ñoo bokk ndey ak baay bi mu jëlee soxna Farimata Seck taawloo ci loo ci góor muy Ahmadou Farimata muy taawam bu góor soxna Mbàkke Xawa Ñang di taawam bu jigéen soxna Farimata Seck am fa doom ji ñuy wax it Cerno Farimata mu daal di dem Musoobe jël fa soxna suñuy wax soxna Buso jël fa soxna soxna suñuy wax soxna Buso taawloo ci Ahmadu soxna Buso teg ca Sayid soxna Buso sayar daldi dem Mbayeen Cës di jël fa soxna suñuy wax soxna Mbay am ci maam Abdou Mbacke soxna Mbay jël na it soxna suñuy wax soxna Xari Jóob am ci Ahmadu Xari Jóob am ci Ahmadou Khary Diop jëloon na it soxna suñuy wax soxna Absa am ci soxna Aysa am ci maam Balla Aysa soxna Aysa moomu buñ koy leeral ñett lan woon Aysa Sidi Sadio Sidi Yacine Sidi ñi ngi santoon dem xaysa lan joxoon sunu maam Mahram moo am ci maam Balla Aysa Sadio ñu yóbbu ko boofeel mu am ci maam Baara saajo Yaasin Siidi demoon ci wetu boofeel am fa soxna sunuy wax soxna buri soxna buri saw soxna buri lan joxoon Ibrahima Awa Ñang mu am ci soxna Anta njaay ak sëñ Ibrahima Ibrahima Mbacke ci taawam bi nga xam ne mooy Ahmadou Farimata moom ñaari doom yu jigéen rek la fi jot a bàyyi moom Ahmadou Farimata ki nga xam ne moo ca topp nag mooy borom penc mi di sunu maam Ibrahima Mbacke xaw a ñang Ibrahima Mbacke xaw a ñang dafa jëloon soxna suñuy wax soxna jee am ci maam Ahmadou Mbacke jee ak sunuy maam ju ñuy wax sëy na bu Mbacke ñu koy dàkkantale ci ndayam moomit ba tey ibrahim Mbacke xaw a ñang jëloon soxna suñuy wax soxna Kànni am ci maam euh, soxna Anta Ndiaye mii waajuru maam Cheikh Anta Daaru ak sëriñ Xaafiya moom Ibrahima Awa soxna soosu it amoon na ci doom ju ñuy wax sëriñ Ibrahima Mbacke ñu gën koo xam ci Ibra Kanni amoon na ci doom ju nuy wax sëriñ Mor Jee Ibra Kanni moomu doomam jim amoon duppe ko ndayam muy soxna Kanni moom la jëloon jox ko borom Sam Mamor Jaara mu am fa soxna Faati Kanni ak soxna Aminta Kanni kii di waajuru bu Bousso Ilimaan kii di waajuru sëriñ sëriñ Moodu Maamun Ñang xalifa sëriñ Xaafiye Ñang yàlla ko suñu borom bàyyi sunu kanam mel ni taawam bu baax boobu yii di taawam Ibrahima Awa Ñang di Ahmadou Jee moo meññi sëriñ Ibrahima Mbàkke ñu gën koo minti Ibrahima Nguy sëriñ Ibrahima moomu moo meññi suñu Moodu Mati Saaxo borom kër gii di waajuru sëriñ Moustapha ba tey it moo meññi sëriñ Modou Fatou Ndiaye muy waajur alaaji xaadim Mbàkke ñu gën ko miina ci alaaji xaadim conférencier ba tey ci kër Ibrahima Awa Ñang noonu la bunte ya yaatoo ndax Ahmadou Dieye it amoon na doom ju ñuy wax sëriñ Mor Mbàkke soxna sëriñ Mor Mbàkke soxna moomu mooy waajuru Ahmadou faati mu jur sëriñ Samba Kindu la ak sëriñ Cheikh Maram Jee magam ak njaboot ga ba tey ci biir kër njabootuk Ibrahima Mbacke Awa Niang ki nga xam ni mooy Cerno Farimata topp ci Ibrahima Awa Niang bokk ak Ahmadou Farimata lépp Cerno Cerno Farimata moom mooy juróon soxna suñuy wax soxna Joosi am ci Ahmadou Joosi ak Mati Joosi Ahmadou Joosi dafa juróon doomi Ibrahima Mbacke Awa Niang ñu koy wax bu Jee am ci Daam bu ak sàmba Samba Seynabu daam Saynabu mooy waajuru sëriñ Mor Penda dinañ baaxoo dégg ci wolofalu sëñ musaaka Ka naan keroog moo sëriñ Mor Penda moo fekkee waxtaan wa ba moog na kon turam génn na ci wolofali ci mag ñi la woon doomi daam bu moomu la Samba bu mooy waajuru sëriñ Mbàkke Saalum ak sëriñ Maam Balla Mbàkke ak njaboot gi ba tey Ahmadou Farimata doomam jooju ñuy wax soxna Joose moom la ñu yóbbu woon fële ca Afe mu xam fa sëriñ Ousmane mi nga xam ni mooy waajuru alhaaji malik si soxna Mati mooy waajuram di doomi Cerno Farimata ba tey kon su ñuy wax maaram rek mooy senegal doomam ji ca topp di Ahmadou Soxna Bousso di doomi Soxna Bousso Ahmadou Soxna Bousso njabootam yaatu na ndax moom moo jur maam ko Mbaan Mbàkke moo jur maam saa buso maam kumbaan mba maam saa buso may maam yi sëriñ Abdou Mbacke Ridis njaboot ga yaatu nañu lool maam kumbaan ku ne xam na ne moo jub sëriñ Abdou kumbaan ñang mii waajuru sëriñ xaafee ñang mii waajuru sëriñ Modou Mamoun ñang ben waxoon léegi sëriñ xaafee ak sëriñ Fallou ñoo bokk benn ndey sëriñ Abdou mii waajuram soxna kumbaan mi ko jur Ahmadou soxna buso moo ko jur Ahmadou soxna buso ki mu bokkal mot ba tey it moo jur soxna Assuwaalo mi nga xam ni mooy waajuru soxna jaara mi waajuru seexul xadim seexul xadim yaakaar sunu yaakaar tey ëllëg ahmadou soxna bu sayit amoon na doom ju ni wax soxna ab sa mbàkke soxna ab sa mbàkke moom lañu yóbboon kokki jox ko njaga isa mu am fa soxna faat isa ñu joxaat ko sëriñ moor anta sali muy waajuru maam cerno ak amoon doom ju ni waxit soxna mbàkke moom euh, ahmadou soxna bu so soxna Mbacke moomu la jëloon dox joxoon doomi Ahmadou Dieng mi nga xam ne mooy taaw Ibrahima Awa Niang mu am ci sëriñ Mor soxna mm-hmm. mu jur sëriñ Modou Faty mu jur sëriñ Sam Mbacke Ndoulo ak sëriñ Cheikh Marème ji ak njaboot gi mm-hmm. ak sëñ Mor Faty Ahmadou soxna Bousso moomu am na ku mu bokkal ndey mm-hmm. ñu koy wax sahit soxna Bousso ñu gën koo xam ci sayar moo juróon soxna suñuy wax soxna Mati am ci Seydou ñu naan ko Seydou Mati bi nga xamee ne suñu borom dogal na ñu woote woote bu mag boobu nga xam ne sunu maam jooju di maam Maba Jaxu Ba moo ko woote woon te ma eh, te sëriñ Mor Anta Sali demoon ànd ak njaboot gi fekkoon na booba maam baan la magaloon yabaloon ko mu demoon ànd ak njaboot gi Seydou moomu ci ña bokkoon ca yoon woowu ca la bokkoon ni fa soxna jaare dese ni la suñu borom tudde moom mu des fa Seydou Mati moomu mooy waajuru sëriñ Ahmadou Ndumbe Xabbaan ñu mën a tudd ni kon mooy maam yi waa Dendey amoon na doom ju ñuy wax it sëriñ Ibrahima Mbacke Ndumbe sëriñ Ibrahima Mbacke ak njabootam fii ci taqaloo kër sëriñ Sam Mbacke Ndula ci marché Ocass ak njabootam ñu ngi foofu ba tey it Seyr Soxna Bousso noonu la ak njabootam yaato waaye dañuy tënk rek buñ ci jógee dañuy tuddaal doom ju mel ni maam Abdou Mbacke Soxna Mbay ndax wax na ne yoroon na soxna su tudd Soxna Mbay am ci maam Abdou Mbacke Soxna Mbay maam Abdou Mbacke Soxna Mbay nag maam la ci Serigne Moussa Ka ndax maam la ci ñaari wetam yëpp ci wàllu ndayam ci wàllu baayam moo tax te wolofal bi mu ngi wax naan Abdou Mbackeem Soxna Mbay ak maxaram mi ñëpp ngoy mooy maami bàyyi sama nday maa dammee li ci xarnu bi Abdou Mbacke Soxna Mbay moomu doomi maam maxaram la jëloon na soxna suñuy waxit soxna xari Jóob am ci Ahmadou xari Jóob Ahmadou xari Jóob moomu jëloon soxna suñuy soxna njéeme sekk am ci doom ñu ko daan woowee maam baaba njéeme maam baaba njéeme moom moo jëloon soxna suñuy wax soxna joor soxna joor am ci sëriñ Balla Joor muy waajuru sëriñ Modou Balla Joor se kër yi yaatu na foofu ci marché Ocass ak njaboot googu boo déggee waa kër sëriñ Modou Balla Joor ñoom ñoo ñëpp ñu ngi jóge ci Ahmadou Khary Diop Ahmadou Khary Diop it mooy maam sëriñ Saxit mi nga xam ne moo nekkoon ci sëriñ Touba ñu koy woowee sëriñ Saxit bakki nekk ak mboolem askan wu baax woowee nga xam ni boo demee ci kër sëriñ Touba gi sëriñ alxaaji Mbàkke mi fi nekkoon yàlla na suñu borom yokk yërmandeem ci barkeb Seexul Xaddim moom it ci njaboot ak Ahmadou Xari Jóob la ni ma ko tuddee léegi rek ci soxna Aysa mi nga xam ni soxnaam la woon mooy wajuru maam Balla Aysa maam Balla Aysa nag la maam Mahram waxoon ci péncu Mbàkke daa di wax ni ay dig yum dige woon daa ni feeg yéen a ngi nangoo fonk kilifa nangoo saako xam-xam fonk alxuraanul karim dina leen wutal ndabul teraanga lu dul jeex ba mukk ndabul teraanga loolu nag ku ne xam na ni ci maam Balla Xaysa la feeñe muy sunu yaakaar tey kala Seexuna al Ahmadul Xadim maam Balla Xaysa moomu ñetti doom yu góor la fi bàyyi njaboot na nag aw jigéen ñetti doom yu góor yim am kenn ka moo ko jiitu muy ab taawam di maam Abdou Khadir Mbacke maam Abdou Khadir fii la wàcce yàlla dogal na nag bàyyi woon na fi doom ñu koy wax sëriñ moor Soxna moom maam Abdou Khadir sëriñ Mor Soxna moomu bi Sayxul Xaddim jëlee Soxna muy Soxna Jature am ci Soxna Faati Ja Mbàkke daf ko jël jox sëriñ Mor Soxna moomu di rakkam mu am di sëriñ Abdou Diop Duyooli ak seenu njaboot muy waa Duyooli yi ngay dégg kon ñoo ngi ci bokk ci maam Abdul Mbàkke maam Abdul Xadir Mbàkke di maam Balla Xaysa maam Balla Xaysa toftal ca jëloon dëggoon ci néegum ndayam di soxna Aysa Kan mi nga xam ne mooy waajuram jël fa soxna ñu koy wax soxna Anta Sali Kan am ci sëriñ Mor Anta Sali mi nga am ne mooy waajuru Sayxunal Xaddim kooku moom Sénégal gépp xam nañ ko muy sëriñ Mor ak njabootam muy borom saam mi nga xam ne mooy ab taawam soxna Faati Anta sax mooy ab taawam ndax doomi Ibrahima Awa Ñang la njëkk a jël muy soxna Anta Njaay taaw la ci soxna Faati Anta moom mooy waajuru sëriñ Mor Faat bu turandu la mu jël sunu maam ju baax ja soxna jaara am ci sëriñ moor jaara ak sunu yaakaar tey ak alak Seexuna Alxadim di waajuru maam Cerno Birahim ni mu ko xamee muy soxna Fat Isa di waajuru sëriñ Seex Coro sëriñ Balla Coro di waajuru sëriñ Masamba ak njaboot gi ñëpp bu nuy lim mën nañ caa juum waaye loolu moom day bind boo xam ne li ëpp ci yoonu murit xam nañu ko ndax saa su ne ñu ngi koy leeral suñ sëriñ Mor Anta caat caatloom sëriñ Mbàkke Kajoor sëriñ Ibrahima Mbacke ñu gën koo miine sëriñ Mbacke Kajoor mi nga xam ne mooy waajuru sëriñ Habibu Mbacke imaam di maam yi sëriñ Basiru Mbacke xel ko mi nga xam ne ku ne na ko ci waxtaan ndax euh, sëriñ Omar Mbacke gelongel moo jur waajuram di sëriñ Abdul Karim maam Balla Aysa am na ñaari faati ñuy wax faati Balla Kubra ak faati Balla Suxra faati Balla Kubra moom lañ joxoon sëriñ Musoobe mu mu am fa sëriñ Mbacke Buso ndax nin ko mën a déggee kon sëriñ Mbacke Bousso li mu bokk ak sëriñ bi dafa bari ndax sëriñ Mbacke Bousso ndayam di faati mook sëriñ Mor Anta Sali ñoo bokk nday ak baay sëriñ Mousso bi mi baayam mook soxna jaare mi juru Seexul Xaddim ñoo bokk nday ak baay kon moom day sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa di moom muy sëriñ Mbacke Bousso amoon na it Faati Balla Suxra mi Faati Balla mu ndaw Faati Balla moomu moom la lañu yóbboon njaa fële ca wetu làppe mu am fa soxna ja Touré moom la Seexul Xaddim njëkk denc si soxna mu jur soxna Faat ja ginnaaw bi leen ko jël jox ko doomi Ibrahima Awa Niang ñu koy wax Ibra Kane mu am fi soxna Buri Mbàkke ñu koy dàkkantale soxna Buri Kane ñu jox ko sëñ Gaawaat muy sëñ waajuru sëñ Modou Mamoun kon njabootu Maam Balla Aïssa it noonu la yaatoo buñ ko doon lim kon nag li wax ni Serigne Touba euh, euh, Maam Maharam mooy senegal ndax doomam jooju ñuy wax euh, doomam jooju ñuy wax. soxna Mbacke Awa Niang mooy maam Serigne Hadi Touré ca Faas waa Faas Touré maam Maharam seen maam la ba tey Ahmadou Soxna Bousso mi doon wax léegi mooy maam yi Alaaji Abdou Assis baax ba tey ndax Serigne Ousmane dafa duggaat ci néegum nijaayam jël fa soxna ndax Ahmadou Soxna Bousso dafa amoon doom ju ñuy wax soxna xari mu jur ngañ xari mu jur soxna Safiyatu Ñang muy waajuru Alaaji Abdou ak Serigne Mansour mi nga xam ne mooy waajuru Sëñ Bay Si Mansour mii nga xam ne mooy xarit Sénégal Tijaan yàlla ko suñu borom bàyyi kon nag buñ koy lim maaram ku ci dugg doo jeexal dadi nag booy tudd mënoo ñàkk tudd ay tur waaye lii ñu tudd du kaaru li nga xam ne mooy njabootu maam Maharam ndax Sénégal foo lamb Maharam a fa ndax ni ko Serigne Touba waxee woon rek sunu borom daf ko barkeel ni mu barkeel sunu maam Ibrahima alayhi salaam kon nag képp koo dégg ñu koy dàkkantale ci askanu Mbàkke buñ ko xamee buñ ko xamut maam Maharam mooy maamam. ndax niñ ko tuddee léegi juróom-ñetti doomi góor la fi bàyyi. muy Ahmadou Farimata Ibrahima Awañang Cerno Farimata Ahmadou Soxna Bousso Saïd Soxna Bousso maam Abdou Mbacke Soxna Mbay Ahmadou Xari Diop maam Balla se mi nga mi caatam di maam yi Seexul Xadim bàyyi woon na fi it ay doom yi jigéen muy Soxna Mbacke Awañang mi ab taawam ak ak kon nag ñu barkeeloogun ci loolu bu fekkente ne amaat nañ yeneen laaj yuñ ci bëgga laaj wala kenn kun bëgg ñu tudd ko rek eh, bu soobee yàlla ñu gën caa salaamaaleykum wa